ngir ñu wéetal yàlla ñu moytu bokkaale nga ne léegi nañ ñëw ñu bennoog bokkaalekat yooyu na ñëw ñu bennoog ñooñu nga xam ne dañuy favoriser bokkaale ñooñu nga xam ne sax bal dañ leen di jaamu te ibnul qayyim rahimahullah nee na képp ku ñuy jaamu nga nopp ci yow taaxut nga ñii ñuy waatee ci ñoom di sujjóot ci ñoom di gëm ne ñoo yor caabi aljanna bar sax léeg-léeg ñu naan ñooy yàlla ñu toog noppi ñooñu ay taaxut lañ ay tawaaxit lañ ndax kii ñu jaamu mu noppi terewu ko taaxut la moo xam dañuy waat ci moom moo xam dañuy sujjoot ci moom moo xam dañ koy naan yow yaay yow yaay nekkal mu nekk yow yaay borom nekkal mu nekk ak yu mel noonu mu nangu ko ko ab taaxut la fekkee nangu na ko ab taaxut la ak mbir yu bare bare bare nga ne nañ ñëw léegi ñu bennook ñooñu nañu noppi ci ñooñu ñu dem ci taaxut te ñooñu seeni bakkaar bu ñu def moo gën a garaaw muy shirk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 Ah, maanaam nag audio yi nga xam ne moom la Alpha def nag man am ma ci mbett man ndax mu defoon leneen lu bokkut ak lii mu def de man moo ma doon bet waaye koo xam ne ay sëriñam lii muy wax lañ ma sa wax la ko dara ci Muhammad Ibn Abdul Wahab nga xam ne moo feeñoon doon rey jullit ñi di nangu seeni alal masale yi nga xam ne da cee wuuteeg ñoom mu ciy sukkandiku di leen takfir di leen jàpp leen rey état islamique yi mu jàppee leen réew yi comme ni nga xam ne noonu la ko ñi koy raddu euh, seere ne daa defoon état islamique yi daara xarb nga xam ne kër yi yéefar lañ yoo xam ne mënees na leen a song euh, boole ponk ponk lislaam yi mu def ko juróom benni ponk nga xam ne maanaam juróomi ponk yi bu jeexee ponk bu war koo gëm mënta ñàkk te loolu ay borom xam yu maandu yoo xam ne ñoo moom ñoo bokkoon jamono ñoo ko seere tayit bokk ci ñoom koo xam ne sax ñoo moo ibnu abdul wahab ñoo bokk waajur ñu di ko woowee suleymaan ñi ay dongaam itam ci loolu lañ masani seen seen fataawaay mi ngi ci addorooru sani yee ñoom ñoo ko mool di ko jaay loolu moom kenn su leen ñoo ko bindal seen bopp état euh, empire ottoman ci boppam muy addawla al ottomaniya euh, dañ doon wax ne kuy sikk sàkk ndax yéefar la ñoom déedéet rek yow sax ñi daal di tàmbalee euh, jëflanteeg yow kon lii lu mën a xew lu mu doondu la da koo jëlee ci ay sëriñ sax indi yeneen firnde yoo xam ne da ngeen ne seen sëriñ su sa ak seen buur yee sax noonee lañ doon wax ak ñi état islamique yi dañ leen a jàppe woon réew yi danaa ko indi dinaa ci indi firnde ndax man lu may wax itam daa koy teg couleur foo xam ne kenn du ko mën a weddi te firnde yi may wax nag euh, la ca gën a bari ñoom ci seen bopp ñoo ko bind ci seen téere ñoom waxee bi téere yi nga xam ne reconnaître reconnaître nañ ne wér na ñoo ko bind mu leer nañ ñoo ko móol euh, ndax damay bañ a tibb fenn rek ñu ne kooku da koo sos waaye ginnaaw ñoo ko waxal seen bopp te koy wax ñoo gën a xam la xewoon boobaa defe naa aw lay dana mën a jeex ñiñ fi bàyyi ba ci jamono ju mujj ji ibnu baas ñoom man xëj boobu lañ wéyal boo xoolee ku mel ne Gunaymaan ñi nga xam ne wuute nañoo ñoom dangay dem ba mu yàgg ne sax bu waajee boo ci jël si nañ ko def boo demee ci ku mel ni fatawa laj na daayima nga xam ne ab lim ci euh, sëriñu wahaabi yi ñoo ànd def di def fatwa yooyu boo dee xool seen fatwa yi da ngay gis ñuy takk fiir suufi yi na alfirqatu tijaniyatu min ashaddi alfiraqi kufran te du boobu du boobu dong du sax tijaan dong la ñuy wax bokk na ci nee nañ bokk na ci kuréel yi gën a taru kéefër julli seen ginaaw dëgganul Euh, am na benn audio moo mosoon a def dajale ci fatwa yu bare bari yi nga xam ne dañ fi takk fiir julli ñi ku ñuy wax lu Ndiaye mooy ngoone soosu nga xam ne xam na xam-xam bi daa bëriwut euh, mu defoon ne mën naa wër a wër ba dindi ko soow na ci ba sonn waaye day mujj bari rek ndax daanaka lu ne fàng moom kenn da ci du man lu bari loolu nag bu amee alpha ba wax lii ay tawassul ak yu mel noonu mu ci tuumaal jullit ñi naa dañuy jaamu kurut yàlla dem ba sëriñ sa sax mën a ay tawaaxit lañ buñ ko nangoo euh, dem bay wax ne sax contre tasawuf xeex tasawuf moo gën a ñor xeex laïcité dem ba nga xam ne boo ko déggee da nga xam ne kii jëppul ne noonu sax jullit lañ nga xam ne moom lu la mën a wax muraawaxaat yi muy def ak yëpp xam ne la ay sëriñam gëmoonam gëmoon ndax te te mooy jàpp ne ñi ne ci lii ñu ne moom ay yéefar lañ da nga xam ne kii moom la gëm bu fekkee wane na leneen itam euh, da ngay xam ne rek moom Euh, moom la gëm te it te wax te wax na sax wax wax ju leer ci biir euh, audio bi xam naa ko dégg moom da loolu moom da nga xam ne kii moom euh, bari na ko wax ne jëpp wala jullit loolu nag li ci gën a metti mooy day danger ci réew mi ci boppam ndax lii kii ku ko dégg da nga xam ne bis bu amoon gànnaay dana song ay nit ku ko dégg da nga xam ne wuuti wuutiwut ak ñee nga xam ne ñoo daloon Mali bu yàggut doon toj bàmmeele da xam ne wuutiwut ak ñeeni siri di xeex da nga xam ne itam amul différence ak Boko Haram loolu nag menacer sécurité réew mi ci boppam lay def ndax si ne seen cell ji néew doole donc moom mooy leen ko jàpp waaye bis bi nga xam ne yëf yi ci seen la ne léegi nga dégg toj xabru bari waaye léegi nga dégg itam yeneen caay-caay yoo xam ne dana bett ñu bari ah man nag waxaab yi moom daa koo xam des ma ko dul jàngal ndax loo xam ne dama daanaka mën naa ne spécialiste laaj yi ah, sax bu ma leen di jéem wax dara ñu di ko weddi reer mooy jàpp ndax ah, bari na ci ñoo xam ne li ma xam ci seen téere seen si xamuñu genn wàll gi ngóor si nag benn xadis la jël boo xam ne dañ ko solo ci yonte bi muy wax ne aw xeetam danañ teqli ko baa ci juróom-ñaar kuréel ak ñett waaye xadis boobu nag dafa bari coow ndax bari na ci borom xam yi sax ñoo xam ne dañu ne wérut même sax ñi nangu ne wér na am na ci ñoo xam ne ziyaada bi ziyaada boobu la ibnu Hazm doon wax ne mawdu'a la te du moom doo nga ko wax itam ndax dafa am ziyaada bu ci am mooy juróom-ñaar ko ñaar yi dañuy dem sawara benn kuréel bu rek mooy dem àjjana loolu na bu xam ne dañ ne benn dëppoowut ak sax tegtal yi leer naññ ne euh, xeetu yonent bi da leen di yërëm am na ci borom xam ne ko dégg waaye xadis joo xam sax déggin wi ci boppam moo bari coow jëmi ziyaar am na ci benn asar boo xam ne am na ci benn riwaay boo xam ne sax nam ñëwee mooy juróom-ñaar fukki kuréel nangam ñooy dem àjjana benn kuréel ba dem sawar même sax boobu am na ci riwaay bu mel noonu dafa ci yoon yu bokkul boole xadis yi ba génn ci maanaam yi ak sax teqale koo gi ñuy wax gan xeeru teqalikoo la ndax teqalikoo ci ay kuréel la comme nee ko alfay waxe wala déet loolu sax dafa am werante boo demee ci al ictisam bu saatu bi saatu bi nee na ku jékki-jékki ne xeer teqaleen wiiri xeeru teqalikoo wii rek la yonent bi wax la nga wax taxakkum la waaye taxakkum la waaye amu ca benn dalil te teqalikoo daa mën a bëri mën naa nekk sax ci mbirum adduna mën naa nekk sax ci mbirum politique bañ a topp imaam wala yeneen ak yeneen bu teegeen rek ci affaire u pas-pas la maanaam déggin wi léerul waaye jëmmi la ca wér ak la ca wérut sax wala ndax wér na foofu sax dañ faa werante borom xam yi dañ faa werante en tout cas ku ci mel ni benn saalex bind na ci risaale bu gudd a boo xam ne yaakaar bu ma ko doon liir fii rek danaa gaawan danaa yeex a noppi ci diggante eh, yoon yi mu aw ak wuute gi gi xadis wuute ci ay baat ba nga xam ne sax boole leen léeg day xaw a jafe ak eh, tamit ziyaada bi nga xam ne borom xam yi ne jëm ziyaada bi moom mawduu la mooy boobu ziyaada boobu kii di wax naa ñëpp dañuy dem sawara eh, tayit même bu ziyaare bu wéroon euh, ñoom bu ñu taxawee ne ñoo doon du salafu saalih ree war a jàpp ñu bari koo xam ne yow da ngay wax ne euh, allahu fi jihaadin maxluq xayri maxluq yàlla mi ngi ci wet xam ne kenn bindu ko comme ni ko Fawzaan waxe wala ngay wax ne yàlla daa toog wala daa wàcc fii di wër wala nga ne amul yenn jamono yoo xam ne mel na moom moo fi nga xam ne yow loolu moom mooy shirku gi gën a mag moom li ñuy tuddee alqiramu nawa'i nga xam ne te mu yenn jamono yoo xam ne nangu eh, nga mel wala ne fi nga xam ne jamono yi daal moom mii ngi defe naa buñ doon xool rek wala nga ne alxuraan daa loolu indi woon na ci ay asar yu bëree bëri wane ne asalafu saalih xam ne ñoo doon wax alxuraan daa sosu te loolu muy seen pas-pas ne xadim loolu te loolu bokk na ci yi nga masala xam ne salafu saalih dañ ciy doon takfiir nit ñi comme ni nga xam ne jullit ñëpp itam bari na ci seen masala yoo xam ne boo ko xoolee ba ci biir mënees na caa takk fiir nit ñoom waxaw yi ñu kon au lieu ñu suural seen pas-pas boobu nga xam ne dafa aju ci wutal yàlla ay xaaj te te lii may wax ne ku ma ko ku ma laaj firnde yi ma indil la ko damaa bëgg a gàttal sama waaye mënoon naa ci benn bu ne fu waxee ne yàlla ay xaaj la wala daa wala ñu melal ko ci melokaan boo xam ne da nga xam wala ñu jox ko leneen pas bu bon bii ku ko yor defoon naa ne yow li la war a ñor mooy noo ca génne waaye àgg ci nag di jéem japp yenen yenen julli ni ñoo xane ne newuñu ci dara loolu nak ak ñak ci teggit mom mënu ko romb ah, waye nak nit ci mom munta tari lum jangut loolu lañ jang loolu yi moy liñ jang boy xolé seen seri ci bo dem ci bo delo ci duraru saniya xol lettre yi nga xane mom lañ doon bind ñom diko bind ñeneen ñu ne ci yenen rew da nga xamne ku ñu jëppu julli te mu waroo mer ndax jamono yi mi judd mom ñom seen buri yi sax dañu defé ni ñi ngi doora dugg ci l'islam lañ nekkan avant Muhammad ibn Abdul Wahab di ñëw yëpp ñu won ni sax l'islam la bo démé ci ad-durar adduraru saniyya da nga fay fekk seen fatwa yu graw graw yo xamné nenañ man lam ya'rif kufra ad dawla wala mu farriq baynahum wa bayna al bugaati min al muslimin lam ya'rif ma'na la ilaha illa allah kep ko xam kep ko xamné xamone ad-dawlatul adawlatul usmaniya la nee na waxamulu laa ilaha illa allahu di di teg fa in ictaqada maa dalika anna dawlata muslimuna fa huwa ashaddu wa azam wa hada huwa shakku fi kufri man kafara billahi wa ashraka bi nee na bu demee nag bay sikk sàkk nag ndax ay julli la ñoom biir nag nee na loolu moom moo gën a tarati moom nga xam ne jàpp ne sax ay julli lañ dong dañ daan dal ci sa kaw waxuma la nag ñoom ñu leen di jàppe jullit ñoom waa dawlatul osmaniya kon li yàgg na ci ñoom Fadal Ndiaye mi ab kaset Fadal xeeti alpha bay yeeg yooyu weesuñ cassette yu ñu enregistré boo demee durooru sani yee tamit da gis ñu ne la qaala cheikh Abdou Latif moom itam seen sëriñ si la woon wa xamidtullaha ala ma manna bihi alayka wa ahdahu ilayka min allahi min al minnati al aluzma wal mawhibati kubra allati hiya asna al almawahib wa ashrafu almatalib maarifatu diin illahi wal amal bih والبراءة مما وقع فيه الأكثرون من الشرك الصراح والكفر البواح من دعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم nga xam ne kon mi ngi sant yàlla ci mucc gi mucc yi muy tudde ak kéefar gu leer nee na dañ nee na dañuy woo ñi faatu ak ñi nga xam ne néewuñu fi ak di xeetliku ci ñoom nga xam ne kon yii faatu di wax naa ak kéefar la te loolu daa ji teqlee ba xam waa ji ko wax lan la fas bala ngaa wax ne kéefar la ndax bari na koy wax loo xam ne laaj ko lu mu jublu da cee baax donte sax nag moom du indi preuve ndax man moom wax dëgg yàlla ah, xëy na awaam yi de waaye borom xam moom bopp suuf yi moom dem di ñaan borom bàmmeel naan ko yow borom bàmmeel booleeg fas ne kii tëdd ci bàmmeel bi moo koy may wala muy def yen yi doo ko gis xëy na nag yi léeg-léeg nga gis ci ko juum loolu mën naa am waaye bu ci indi woon ay misaal boobaa la tontu bi gën a waaye ñoom xam nga dañoo tàmm rek buñ tarar yi dem xam nga dafa ah, yaatu seen mbir waye lol nak du du kéemaan seen buur bi ñu wax Abdul Aziz ci boppam Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Saoud waaye dama ci dororu saniya da ngay gis mu ne ñom ay lañ won la ta ñoo dugg ci wote gu bes gogu nga xam mom lañ sos neena wa kadhalika kunna naf'aluhu qabla an yamunna allah alayna bi din alislam mana noné lañ doon def te loola moy lan moy da'watu ghayr allah wal istigaasatu bis salihin min al ahyaai wal amwat neena ñi ñii dund ñi nga xam ñoo ñi ñu bax ñi ña cay dund ak ña cay faat dañ daan jéem a xeetlu ko ci ñoom nee na loolu nag bañ koy def booba yàlla daa indéegutoon diine l'islam ci ñoom nga xam ne kon daa jàpp ne kon ña koy def te jamono jooyu ñu bari nee nañ ci loolu lañ ne woon ñoom ñoom seen bopp ñoo ne ñu jullit ñi ñi eh, réew jullit ñi ci loolu lañ ne nee na ñu koy def ay yéefar lañ waaye nag léegi moom nee na l'islam may na ko mu euh, mën a dugg ci l'islam mu dugg ci l'islam ba léegi itam seen sëriñ bi ñuy wax Abdullahi ak seen sëriñ bi ñuy wax Ibrahima te ñaar ñii doomi Abdoulatif ma leen ma doon wax la ak seen sëriñ bi ñuy wax Souleymane ibnu Sahman boo demee ci durul saniya da gis ñu ne laa tasixu imaamatu man laa yukaffirul jahmiyata wal quburiyina aw yashukku fi kufrihim képp koo xam ne ñi tudde jahmiyata buñ ko waxee achaari yi lañ bëgg wax daanaka ak xubóor yi yóne maanaam ñi nga xam ne suuf yi dem ci bàmmeel yi dafa tawasul ak ñu mel noonu ñooñu la ñuy faral di wooye xubóor yi yóne nee na képp koo xam ne néewoo ay yéefar lañ wala ngay sikk sàkk ay yéefar la ñoom déet euh, nee yow julli ci sa ginnaaw sax dëggalu maanaam mënoo jiite yow mi sikk sàkk ba xam ndax ñooñu yéefar lañ wala doonuñu ko rek yow mënoo jiite nga gis ne kon euh, alpha waxut lu bees daa fekk la nga xam ne moom la ay sëriñam doon wax rek mu di ko répété xubóor yi yi julli ci seen ginnaaw nga gis ne itam ibnu bas ñom ñe nga xam ñoo def fatwa ye ci man mawal fatawa te mu ko doon wax ke diko weddi ñoo ñi itam waxuñu lu bes da fekk la nga xamne serigne muy waxaabi yi ko jittoon ci loola lañ ne mune wa amadu duaa salihin saalihin wal istigaathatu bihim wa qasdihim fil wa sharaid fa la yunaza'u muslimun fi tahrimihi wal hukmi bi annahu min ash-shirk al akbar ye ñuy tumal nit ñi doonte sax nag bari nañu koy def ñoo xam ne lañ ca jubloog la ñuy wax ñoom du benn waaye ñoom seenu déggin la ñuy jël daal ne yéefar xam naa nag kenn dëgganalut kuy ñaan ku dul yàlla wala ngay xeetli ko ci te jàpp ne moom moo lay xeetli waaye du yàlla wala ngay tawasul ci moom te jàpp ne moom ci boppam mooy jeexital nga xam ne moom moom ci moo lay xeetli waaye yoonu yàlla néew ci moom kenn dëgganalu ko waaye nit ki itam tëb tuumaal ko shirk donte sax ni da nga koy def nga tuumaal ko shirk te xamoo moom la mu fas loolu mooy ak ñeme yàlla ci boppam tawassul nag moom bu dee tawassul gi nga xam ne moom la yoon ci bu jàngale loolu moom jullit ñi dëppoo nañ ci comme ni ko sub ci waxee te du moom moo ci nettali euh, loola moom defe naa ne nekk di ko jéem a weddi sax weesuutu ndox bokk na ci itam li nga xam ne yenn borom xam yi dañ leen ko doon wax ne dañ ko doon def maanaam mooy jàpp réewu jullit ñi réew yéefar te gone yi di ko weddi ñoom seen bopp ñoo ko bindal seen bopp boo demee ci duraru saniye wasiqa bi nga xam ne moom la buurub arab saudi doon doon doon wax ne faaw dañ koy signé boo wasiqa ba nam ñëwee woon mooy bokkoon na ci lañ ca bindoon wa amma ma waqaa fi makkata wal madinata saabiqan fi makkata wal madinati saabiqan wa shaami wa misra wa gayriha min al buldaani ila al aan min anwaaci shirki almadkura fi hada alkitab annaha alkufru almubiixu liddami walmaal nee na yooyu muy tudde kéefër te nga xam ne amoon na ci màkk ak ak madina ak shaam ak Égypte ak yu ñoom ci réew yi ba nga ba fi ne mi ngi am nee loolu mooy kéefar gi nga xam ne nag day daganal deret ak alal nga xam ne ku ko def manis na song rey la nangu sa alal kon lii moo tax ngay gis ne boo delloo ci histoire wahabi song nañ Irak song tamit Makka song Madina ndax ñooñu ña fa nekk ay yéefar lañ leen woon jàppe ndax nee nañ la nekkoon ak kéefar la goo xam ne daganal nañ ñu mën a rey nit nangu alalam kon ku koy jema weddi say serigne ñoko waxal seen bop wasiqa bobu nga xam mom la bur bobu don do do doon signaloo nga xam ne Saaxoot Ibn Abdul Aziz seen bur bobu moko don signalo rew yi nga xam dalena da leen wala ñi nga xam mom ñom la ño ñoo fa ne wasiqa bobu ñewon na ci ne wa kullu man khalafa ma fi hadha alkitab min ahli misra wa alchaami wal iraq wa kullu man kana على دينهم الذي هم عليه الآن فهو كافر مشرك min mawqiihi wa yumkinuhu fi dalika wa izalatu eh, wal bidaa nga xam ne nee loolu nga xam ne moo nekk ci mu bind ku wuuteeg ñoom ci waa Égypte wala waa Cham wala waa wala nga nekk seen diine ji nga xam ne léegi ci lañ ne nee yow ab yéefar nga boo xam ne kuy bokkaale kon ñii wax dëgg yàlla alfa ngaa mën a wax lii ndax buuri arab saoudite yi ak sa sëriñ sa nga xam ne ñoom lañ àndaloon yii rek lañ mas di wax kon boo ñëwee di ñu ko wax fii ci senegal ah, bu ñu la seenoon ci biir armée Boko Haram mbaa armée ñeene Syrie di xeex ak Bachar ah, te néew mu sax Bachar ci yoon la ne waaye nekk ci xeex xeex boo xam ne ci pas-pas nga ko teg walla nga bokk ca Daesh du ñu bett war nga caa bokk ndax pas-pas moom nit mënta wane lu bokkut ak moom. Ah, am na ci benn buur bu yaman boo xam ne da ko bind lettre yi bu dee bii moom lettre la boo xam ne Shawkaani moom moo ko indi <coughs> am na benn buur bu lettre boo xam ne buur bu ñu saw ñëwee dañ ko bind lettre ay jamono benn buur bu nekkoon yaman benn genn kilifa nee na ne bokkoon na ca liñ ko bindoon lañ bindoon fa yow ma an baana lakka diinul islam yi fa baadir bi duxwali fii ab gidil la de ñii di ko bind naan ko bu fekkee ne diine diine islam leer na ci yow nag léegi kon gaawal dugg ci nga gis ne kon ñoom jëppiwuñu woon réew jullit ay eh, ay réew jullit réew yéefar yoo xam ne moo taxoon ñu doon doon song naa dañuy jihaat parce que jëppuñu ne ay jullit la ñuy rey moo tax eh, boo demee ñi ngi naan màkka farna ilal mushrikin màkka farna muslimin maanaam ñi ñuy teg fiir ñoom duñu doon ñu ay jullit ay yéefar lañ ah, wax dëgg yàlla ah, doy na waar doy na waar lool ñi leen seere ñëpp nee nañ ci loolu lañ doon takfir jul ñi ak song leen ba ci seen sax ñu mujj ñi dañuy takfir jul ñi ba ba léegi alpha ba ñoom ñi itam loolu rek lañ doon danger lañ nag cim réew ñi nga avertir sax le président la république ñëpp ñi nga xam ne am nañ euh, ab dogal ci réew mi ñu teel a jóg ci wahhabi yi ndax buñ danger bi mu ngi gën di yaatu dañuy andi doctrine gone yi di ay xalaat yoo xam ne day tax ñu bañ seen seen mbokki jullit te bu yàggee bis ñëw bis dana la te bu ñu ñeme woon nëgën ña nga naan sëñ yi dañ rek moo tax seen cell leeral ju métti ji te bis bu ñu amee doole ba nga xam ne xam nañ ni que ni kenn ëpp doole loolu sax duutu mën am moo tax ñu mat a moytu lañ. Euh, kon lii mooy ak waxaabiya ñi nga xam ne sax doon nañ leen tagg am na ci ñoo xam ne dañoo nga xam ne dañoo déggoon Muhammad Abdul na ñoo xam ne dañoo deltu moo tax yenn kilifa ci ñoom euh, mi ngi doon wax naa rajaatu ala al qawli alladi qultu fi najdi faqad saxa li anhu xilaafu alladi indi ba mu yëgee moom mi kat dekate rey jullit ñi nangu ci la ne nga xam ne Euh, état islamique yi moo xam Égypte la wala sham wala Makka wala Madina mboolem képp koo xam ne duggoo ci woote gi nga xam ne moom moom la Muhammad ibn Abdul Wahab gis moo ki gaayam yow ab yëfar nga xalaalu dami wal maal nga xam ne maris naa mën a nangu sa alal euh, ray la bu fekkee nangu woo dugg ci woote gi nga xam ne nee nañ mooy lislaam nga xam ne buur bi ci moom sax danaan laata maa dugg ci lislaam bi mu ci woote gi xam nga ba avant woote gi nekkuma woon ci lislaam xamoo sax maanaa laa ilaha illallah comme ni ñu koy waxee ci duraru euh, saniya bu fekkee duggoo ci wooteem googu maanaa kon loolu ko gars yi doon wax naan ko yow léegi da ngaa def ponk lislaam yi juróom benn looloo koy waral nag ku duggut ci wooteem gi rek yow yëfër nga loolu ne moom lañ leen sol moo tax daanaka fi ne xatar jii ñuy waxee looloo ko waral dañ lay xam nga waxaab yi daanaka dañ lay sol sol ay xalaat yu bon ba nga xam ne ngay gajalam nga xam ne ay tooke ngay sànni booy wax sax daanaka mel doo doo mën a wax lu baax euh, ci lañ leen yar moo tax Sénégal gii fi mu ne ngay gis ci kaso bi ñoo xam ne dañ leen a jàpp ci affaire Boko Haram wala affaire terrorisme ndax mënul yaatu te loolu amul doonte sax nag buur bi moom fi mu ne nii Mohammed Ibn Salman yëg na ne danger la ba nga xam ne mu ngi ciy jéem a dox yoo xam ne dana tax yëf yi ngir gën a jege jullit ñi comme ni mu ko waxee noonu la ko waxee maanaam nee na li tax jullit ñu bañ ñu ñoo ko def comme nii Alpha Baye waxee nee na loola tax jullit ñu bañ leen man déglu naa kaset bi diw nangam diw yéefar la diw nangam Euh, nee na loolu tax jullit ñi bañin te nee na du du ko nangu dana ci jëli mesure mesure waaye euh, en tout cas tooke la joo ne dugg na ci monde islamique euh, bu ñëwee ci sam réew nag da nga xaw a tiit ndax li tax nga xaw a tiit mooy xam nga ne xale yi nga xam ne nar nañoo dugg ci gii sànkute pas-pas bu bon boo xam ne dëpp wut ak salafu saale salafu saale sax dañ leen doon takfir même ñu ñëw woote woon ne ñun ñoo dëppoo ak salafu saale buñ ca yemoon sax mu tane ndax nit ki moom bu ko neexee fas li mu fas àgg ci indi loo xam ne mën naa indi insécurité ci mu réew ndax xam nga lii moom bu yaatu wóor na leen guerre dana am nii Alpha Baye waxee liñ ci gën a xorom nag na manis ñoom waaye mun ñoo bennoog ñoom lii ku wax da nga nit lii fi nii bu fekkoon da nga ko wax ci biir nit dañ ni kenn waxatu kon kuy jàmmoo doo doo wax lii loolay problème